ñu ngi leen di nuyu ñu ngi fii ci euh, place de l'obélisque euh, place de la nation la ñu nekk ci waa aar lu ñu bokk mais tey ñoo lànk kuréel gi dafa dem ba dafa tudd ñoo lànk ñoo lànk bi lan la lànk carré lànk ba tëdd si naaj bi tàng bi ngir lañ. bañ ngir ñu yokk euh, courant bi courant bi nga xam ne yokk nañ ko euh, te muy war a nekk intérêt Sénégal yëpp moo tax ñoom ñu woote tey ci àjuma ji def benn marche marché pacifique la euh, préfet autorisé na ko alhamdulilah rabbi alamin te boo xoolee ñuy ngi commencé di def ay déclaration ku ci nekk rek ak fa mu bokk mi ngi ñëw di def déclaration di wax ana lan moo tax ñoom ñu joxe fi ndaje mais balaa ñuy gën a sori ci waxtaan bi dañu nekk ak suñu benn papa papa yëkkati tableau bi ma xool papa bi li tax mu ñëw yitteel yëkkati tableau bi caméra bi jël ko. lan nga wax fii papa ba pare. fii dañuy fii dañuy wax ne bala maa wax damay présenté wu sama bopp ba pare maa ngi tudd Abdoulaye Mbaye ñu di ko wax commissaire ancien délégué personnel di ouvrier. waaw li nga xam ne moo ñu métti retraité yi ku ci feebar boo demee hôpital euh, hôpital IPRES dañ daan amuñu garab pendant juróomi at a ngi ni garab mënu fa am waaw xaalis IPRES bi fan lañ ko dugal hôtel Indépendance nee nañ IPRES moo moom xaalis boobu sax bitti bi ñuy fay la naka la mën a demee amatul garab aspirine rek sax pour nga am fa dañ lay dañ lay daggal mocce ñu nga yóbbu. aspirine dañ leen di daggal dañ leen di moom it benn benn paquet benn bëgg lañ lay jox nga yóbbu mais loolu ñun jaaxal lañ te xaalis boobu ñun ñoo ko moom xaalis bi fan lañ ko dugal ka fa nekkoon dañ ko doon jéy baane ne dafa sàcc xaalis IPRES bay tabax immeuble léegi ba ko Macky Sall jëlee def ko def directeur HLM loolu mooy lan. jëlee ko jëlee ko ci dugub gi yokk ci saaku mboq mi. Hmm. mu gën a lekk rek ba xam. loolu moom daal ku sàcc ci ñoom rek boo demee ñu jox la feneen nga nga def toog noppalu lii moo ñu naqari ba tey ñu xam ba tey ñu ngi bokk ci maa lànk ñoo bañ nañu bàyyi nag Marie a mu àndal yëpp nañ leen bàyyi ci ñi mu a gaawee ñun ñëpp xeex bi ñoo ko bokk. xam ne dañu retraité yëpp war nañu jóg ñem ci tali bi xamal ne am nañ lu ñu metti ñun ñoo gën a am lu ñu metti hmm. nga nekk mag am nga lu la naqari naaj bi tàng na xëy na war nga nekk ci leneen nga ñëw teew fii ça dire que lii nii yitteel na la comme ni mu yitteelee Sénégal. yitteel na ma yitteel na ba tey maa ngi préparé ma a ñëwee man yitteel doomu aadama yi daf ma dama ci yàgg même waaw parce que man toujours intérêt peuple bi moom moo ma moo ma ñor lii itam may xeex médicament yi du pour man rek pour peuple bi ku ci demati mën a am garab Macky Sall nañu dimbali ki yore IPRES dafa am ay garab amatuñu garab amatuñu garab te ni dañ liggéey ba ba des benn at mu retraité mu dee xaalisam fa lay des. te loolu ëpp na euh, ay milliards yi. milliards lan ak lan moo fa am lu doy waar garabu tension amatu fa garabu diabète amatu fa ah garab yi gën a yi a itteel mag yi dara amatu fa aspirine moo fa am ak ak paracétamol rek moo fa am tas taseer ba ñi nekk ci pharmacie ba dañuy euh, kii ba dañuy sëngaam rek dara moo fa amatul dañuy nekk noonu ba ngoon jot ñibbi. fan nga jógee. <coughs> man maa ngi jógee fii Aladji Centenaire. waaw foofu laa jógee foofu laa dëkk waaw. yaa xutee njëkkute man ma daan fay ñetti weer li ma daan fay ñaari weer moom ñettiweer moom laay fay léegi ci ñaari weer waaw ëpp na léegi loo fayee ko trimestre dafay demaat ci ci courant bi te mburu maa ngi ñëw pour yokku leneen a ngi ñëw pour yokku Macky Sall fu mu ñu jëme fu mu jëme lii doy na nag arrête arrête na taxaw nee na arrête na taxawaa ah, euh, nee na léegi IPRES Ablaye dégg nga ko nee na IPRES boo demee paracétamol lañ lay jox ak aspirine. amatul garabu tension kon tension war na leen sonal temps mag ñi boo gis am dafa am garabu ta mag ñi ci ëpp yëpp ak jigéen ñi fay dem yëpp tension diabète mooy li gën a amee te amatu fa waaw yooyu dara amatu fa loolu te yooyu boo demee ci pharmacie bi nga ko mën a jëndee mais comme amuñu garab nañu defal benn fa boo amul garab. nañu nañu collaborer ak pharmacie boo demee yëpp photocopie IPRES bi déposé ko ba nga fay moitié IPRES fay moitié xanaa loolu mën nañ ko. loolu mën nañ ko loolu nañu war a def noonu nañu def photocopie nañu accordé nañu euh, si ce ak ak pharmacie yi boo defee photocopie. jox ko pharmacie ba nga fay mocci bu ko defee IPRES fay mocci hmm. ah waaye dara da ngay fayeku li ngay fayeku yëpp yem ci ordonnance. mais say yeneen moroom troisième âge wu leen. dégg tali bi. ñu mënuñoo bari ay yat la ñuy ak yooyu am na ñoo xam ne ay puus puus la ñuy doxee leen di foofu puus ba foofu ñu ne ci oto yóbbu. Sénégal parce que tey euh, mën nañ wax ne mobilisation bi passé moo ëpp bu tay bi ah. waaw bu keroog bi bu bi moo ëpp bu tay bi parce que nit ñi ñeneen ñi amuñu paas bi lu fi ne man bu ñu ma falee ministre fan la ministre bu ñu toogee dem naan la jox ma sama doom ma embauché ko may ma jox la sa doom nga ko kay tàccu nag doomam toog fa rek di tàccu doomu doomu doomu ñooy jël bu ñu jógee doomu doomu ñooy tàccu di tàccuwaate rek nit ñi nañ nañ am xel ci loolu yaa ngi tàccu bu morom amee poste ministre jël ko ngeen ngeen weccente ay doom yéen seen doom yi leen di tàcc na ngeen di am fayda ci loolu na ngeen di am fayda ci loolu te arrêté tàcc yi ak njaganjaay yi leen di dugal ngeen di tàccu ak yëre yi leen di dugal yëre yi leen la bu ñu leen lebaloon léegi da ngeen koy fay da ngeen koy fay ci ndox mi fay ko ci courant bi waaw jërëjëf kon mu nekk suñu benn papa boo xam ne moom itamit dafa ñëw ah, si manifestation wax nañ leen ko sa euh, waa ñoo lànk euh, muy kuréel gi nga xam ne papa jël ko papa papa nee na nga jëlaat lii jëlal lii baax papa garab la ñu soxla garabu tension. garabu léegi paracétamol moo fa am ak aspirine. Ah, rek moo fa am. kese te faju leen. waaw ak paracétamol fajul kenn. waaw te IPRES euh, moom hôtel Indépendance. moom lañ koy fayee ko ñoom ñoo koy lekk. ñun xamuñu fu mu koy dugal. Hmm. Ah, kooku bokkul ci budget mi ñuy fayee. ah am ñoom ñu fay mocc hmm. bu ko defee retraité. waaw léegi nag euh, ñu am ñoo xam dañuy waxtaan waxtaan ak moom papa alors. Euh, tey yaa ci ñoo lànk gi yow da ngaa lànk lan nga lànk. lànk yokkum courant beeg lu doxul si dëkk bi les rien ne va dara doxul si dëkk bi courant bi cher na ndox mi cher na dund gi cher na nit ñi dañoo sonn dañoo maar si Macky. yow troisième nga. mën naa ne deuxième âge parce que ma dese na ma cinq ans ma dem retraite. waaw ma dem retraite. sànq retraité yi ñoom tamit ñu ne sonn nañu ma def na yow troisième âge. la parce que dama ko ma waaye ñun ñëpp a sonn première âge ak deuxième ak troisième ak ñëpp a sonn dañu maar affaire yi day dafa doy dafa doy dafa doy pour régler seen problème il faut ñu yokk courant bi wala ndox bi ñun ñu. ngi nekk en action il organise bien caata ngi organiser ak tamit euh, waa ñoo lànk ñoo bañ ñu ngi noonu léegi dañuy defar groupe bi bu baax a baax a baax moto yi ñoom ñooy jiitu nit ñi nekk ci digg bi sono bi nekk ci ginnaaw waaw ah, noonu la war a demee moo tax ñu taxawaat tuuti policiers yi wax leen ñu gën a organiser wu bu baax a baax nga xam ne pëccëxoo du am. ah bi sax si si si groupe bi si defar bi la bokk ah suñu papa ji ah Ablaye papa ji sax ci ci ci defar bi la bokk suñu papa ji gis nga ñoom ñëpp amul papa. amul doom amul xale ñoom ñëpp ci organisation bi la ñu bokk. gars yi ndànk ñu ñu waxtaan ak tuuti papa papa euh, gis nañu geste geste bu rafet bi ngay def yaa ngi encadré xale yi dafa mel ni kii muy geste bu rafet ànd ak ñoom ci xeex bi nga xam ñu ngi koy xeex. waaw mais kii suñu xeex la ñun ñëpp euh, suñu doom ñi jàmbaar la ñu ak Sénégal yi fi teew yëpp tey seen bopp la ñuy xeextal euh, kenn indiwu leen ci ay autobus kenn dogalu leen fenn ñoo ñëwal seen bopp kon nag lii daf leen ñor daf di dëgg ci ñoom ñoom kon nag looloo tax ñuy marché tey et puis dëkk bi euh, métti na torop il faut que yëf yi changé tuuti voilà looloo tax ma ñëw. moom itamit euh, nekk fii di jàppale xale yi euh, di leen encadré bu baax a baax bokk na ci ci ay conseils suñu beneen papa ngi ni papa na def ñu ngi lay ziar. maa ngi sant maa ngi lay ziar. maa ngi si jàmm bu baax. alhamdulilah sant yàlla. papa yow tamit lan ngay lànk ak lan nga bañ. je citoyen. li xew ci réew mi du yokkum courant bi rek. dara moomatuñ ko ci réew mi rien ne nous appartient on se sent étranger chez nous c'est tout je ne sais pas quoi vous dire. jëfër gi dafa am looy yëg booy wax ni nii. non parce que on est lésé donc on devient des frustrés on peut pas se révolter parce qu'on est républicain mais qu'ils arrêtent de nous léser c'est tout. papa borom moto bi borom moto bi. damay yéeg si moto bi ànd ak yow tey papa yow tamit yaa ngi ci xeex bi ak. may xeex ñoo lànk courant bi dafa seer. amul toog sa kër ñëpp ñëpp on se bat pour faire reculer le gouvernement. da nga def essence sa moto essence bi cherul. non cher na kay mais jàllal ko. essence bi cher def naa ci francs bu ñu daan dem de se mu reculer pour wàññi parce que lépp lépp cher. dawalal. papa dawalal nee essence la def francs ñëw bokk. bokk ci xeex bi borom moto yi suñu papa yi yor moto yeeg ñëpp euh, papa yow it yaa ngi yor eh, eh, Seyna papa tamit mi ngi klaxonné. ah oui vraiment les peuples sont morts quoi lépp ci xeex bi waaw vraiment li dafa métti quoi xam nga vraiment suñu chef d'état yi nawloo ñu asani sax quoi. parce que xanaa dox bi tànk yi day métti moo tax nga jël moto bi. <laughs> non tànk yi méttiwul sax tànk yi méttiwul sax vraiment mais dañu kii rek quoi vraiment dañu mobiliser wu vraiment li jóge fi quoi parce bi lañ dëkk ñu liggéey rek rek état bi jël ko quoi ñun dañ comprendre ne qu'est-ce qui se passe quoi xam nga nit ñi muñ leen lu ne def nañ ko quoi mais boo demee ba sa muñu kaay jeex aussi tamit li ngay def mooy vraiment wàcc ci mbedd mi rek lii lan moo ko gën wàcc ñaxtu mais ci constitution bi la bokk kon donc ñun lii suñ suta suñu suñu def dawalal jërëjëf papa kon borom moto yaa ngi noonu suñu papa yi dañu jor seen moto ah ñëw bokk ci dugal seen essence waaw di def affaire jeune tey affaire jeune la amul papa amul xale amul mère amul mag waaw dox ba RTS